baynal xadimi wal maxduum lu leer la ndax li koy leeral mooy doon gim doon xadimi rasul te yàlla seere ko shahida lil baaqi bi anniya al xadim wa xidmati lil muntaqa bichrun yadu mooy yàlla yàlla moo seere ne man maay xadimu rasul oh. te yashhadu bi daa raqibun wa atid fi kulli yawmin inda dir'ansil majid Sëñ Tuubaa nee na kenn ku ne am nga ñaari malaaka muy raqib ak atid nee na waxtu wu ne bu ñuy dem fa yàlla borom aras dañ koy wax ne ko ahmadou bamba mooy abdullahi wa xaadimu rasul est-ce que kon loolu doona ca lay misaal diggante ba yonent bi nii la def ndax dafa wax ne waafaqanii xayrul bariyaati ahmadou wa raafaqanii xayrul baraya muhammad loolu bu ñu waxutoon dara loolu doy na sëñ Tuubaa loolu boo ko doon tekki waafaqanii xayrul bariyaati ahmadou wa raafaqanii xayrul baraya Muhammad boo koy tekki da nga naan sëñ bi ne lu ma ne ca la bi ne fu ma ne wala yonent bi ne ndax waafaqa ni raafaqa ni kon dëppoo naag man ci mépp mbir waaye nag dëppoo gi mu dëppoo ak man man ci mépp mbir sama digganteeg moom it nii la alalladi bayni wa baynu tasal bi leen tasaalin yaa naa jiyee man wasal ila ilahi la qad wasaltu wa an rasulillahi ma fasaltu sëñ bi ne maag yonent bi nii te def nii mosunoo tàggoo dañ ne napp maa ngi daan na giñ ñaa ci yàlla taqoo na ma ak yàlla taqoo ak rasulullah bu ñuy xool ki gën a bëgg yonente bi mooy sëñ Tuubaa ki jiitu ñuy liggéeyal yonente bi mooy sëñ Tuubaa ndax yàllaa ko ci jiital xaddamanillahu ala alxuddaami mmh. bil muntaqal musabitil aqdam waaye bëgg yonente bi alayhi salaatu salaam xoolal ni mu bëggee yonente bi salaatu salaam dafa egg ci bëgg ko ba xam nga boo boo xoolee jàngkat yi mmh. dañuy misaal ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne dafa am ay mandarga yu tegtale bu ne diw bëgg na yonent bi salaa salaam mm-hmm. ñu ne bokk na ca mooy iqtidaa bi sunnatihi maanaam doxe uh, yoonu yonent bi salaa salaam ak melowoo ay meloom ay jikkoom ak dundal sunnaam yooyu lañ tànn ne bokk na ci mandarga yi wone bëgg yonent bi ak yonent bi gënal la sa lépp mm-hmm. yonent bi salaa salaam mas naa wax ne jamono dina ñëw am na ci biir sama xeet bi koo xam ne moom duma gis ci zaahir danan sorante france bu soree waaye maa koy gënal bakkanam maa koy gënal alalam maa koy gënal njabootam te loolu boo ko doon xool mënoo koo teg kenn ku du Sëriñ Tuubaa ndax li nga jot a jàng lépp dégg goo ko egg ci mahat mahabati yal muxtaara sayidina habbil maganiya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fida un lahu abdan xadima lahu muskaana li sanada sëñ Tuubaa rek moo wax ne uh-huh. sama biir xol uh-huh. effacé wu na ci far na ci jeex na ci tag uh-huh. habbul maganiya bëgg ay koom wal ahli na ak njaboot eh. wala wala daa ak i doom eh. dammi wa sama deret man sëñ Tuuba eh. ak sama njaboot fidaa un lahu def naa ko muy njotug rasulullah loolu moo tax mu egg ci ne dammi fidaa un li xuruji dammihi wa maradi fidaa un li daa i jasadihi sëñ Tuuba ne na yonent bi bu waroon a deretam tuuroo joxe naa sama joj engagé naa ci sama deret tuuru tawat ju ko war a dal nag man watti naa ko man ma tawat man sëñ Tuuba maanaam may tawatal yonent bi bu deretam waree tuurut maa li nit gën a bëgg muy alal sëñ bi ne fàtte naa ko sama xol dafa fatte bëgg alal xaalis ak naari góor ak i soxna ak lépp bëgg yonente bi tax ma fàtte ko bi man bi xobbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xayala bëggatuma wurus bëggatumay naari góor bëggatuma dara sama xol ki ci nekk mooy yonente bi alayhi salaatu salaam bëgg gi mu bëgg yonente bi moo tax mu yàgg ci ne xaddi jaaltuhu turaaba naalihi yaa laytani laxidani bi fadlihi damaa jël sama lex bi laltaay ko ci ron ndëggul tànk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aka neexoon mu gestu ma daana bu ma na ak yonente bi di dox ba mu ne jëyi tàngam bëgg ko teg ci dégg sama lex bi lay dëpp ci dégg yonente bi jogg ca beneen lex ba jàll xaddil wiqaayatu rijlil mujtaba an shawkatin waayu daa aqraba wala jiit bëgg koo fett lex bi lay tëral jiit ji fett ci waaye du tegg ci tànk Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bëgg yonente bi alayhi salatu salaam ba wax ne bu ma tawatoon bu ma kenn wutalub docteur tuddal rasulullahi rek ma wér shifaa u jismi wa shifaa u qalbi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam foo ma yóbbit nag ba defee ne wéet naa déedéet muhammadun dikruhu unsi wa mafaati wa nuuru qalbi wa raaxaati wa envoyé sëñ Tuubaa nee na tudd yonent bi tudd ko tudd yonent bi mooy sama wéttal tudd yonent bi mooy sama saafara tudd yonent bi mooy noppal samay cër nga xam ne kon tudd sallallahu alayhi wa sallam bëgg gi mu salaam ko may melowoo waaye bëgg gi mu bëgg yonent bi moo tax ñu ne ku bëgg yonent bi misaal mi koy wane mooy roy gi mu waxal boppam ne lay set leel yow ma xaajaatun am miluha si waxti fay ka xaf wal xalbi wal badan aw ma gën bëgg ma Cheikhul Xadim lu may roy yonent bi roy goo xam ne xafal xalbi wal badan dama koy roy sama xol waxtu nekk di ko roy samay jëm waaye kon saf ixtifaa yi yow yàlla na nga rafetal na nga sellal sama topp roy yonent bi alayhi salaam bëgg yonent bi ba lu may bëgg ci yàlla ci bi laa koy jaare bihi aruumu jameel xayri min maliki lu tax faxul wasilatu fi sirri wa fi alani bëgg yonent bi nag am mat gu tol toll nungu wul kenn nekk wasilaam ku du rasulullah mu yàlla sama diggante yow bu fi doxalee kenn kenn kenn ku dul sallallahu alayhi wa sama diggante yow bu ci doxalee kenn laa tajcalanna baynii wa baynaka abad waasitatan siwal muqaddim sanad sama diggante yow bu fi kenn dox ku dul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daan na nag sama sëriñ wasilati abduhul muxtar sayidina huwa alladi man aba taqdimahu xufila sama kerkeraan sama wasila man sëñ Tuubaa mooy yonent bi alayhi salatu salaam mooy ki nga xam ne ku bañ ak jiitoom yàlla gotti la mu ne yonent boobu nag laa bëgg man sëñ Tuubaa bëgg gi mu bëgg yonente bi alayhi salaatu salaam moo tax mu ne woon sama dund gépp man danaa ko jeexal ci liggéey rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaf na ladi min umri qad baqiya fi shukri wal xidmati insha rabbiya nga xam ne amul genn bëgg lu may tagg yonent bi bëgg yonent bi jeex ci yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne bëgg gi mu bëgg yonent bi xoolal nifaali wa ibgaa'i wa fawzi bila anan bi kaw nii xadimal mustafa tatabayanu ak bëgg ngoo yu bajjilu kulli kullakal yow maa gaddi wa insha rabbi laa urada ridawani sama lépp mu toll day màggal waaye nag yu wàkki li kulli xabla xubbi bi xidmati nga xam ne sama cofeel bu mu cofeel si yonent bi salaa salaam day feddali ko waxtu wu nekk sama di bëgg dolli ko ci yonent salaam xabla wuddi nga xam ne sama sama buumu bëgg cofeel da koy feddali ko waxtu wu nekk maa ngi gën a feddali bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg googu mu bëgg yonent bi moo tax mu jël léppam jébbal ko rasulullahi jumlatu maali wa midaadi wal xalam hadiyatu lil Mustafa babi naam samay xalima samay daa sama njaboot sama lépp jébbal naa ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muy xam ne bëgg yonent bi alayhi salaam moo tax mu yegg ci melo woo xam ne kenn mësul gis ku bëggee yonent bi ni ko sëñ Tuubaa bëggee nga xam ne bëgg yonent bi eggoon na ci xam ngeen ne dégg nga noonu ñu koy nettalee ñoo ñu ko doon jaay ak rasul ci njaareem ndax bëgg yonent bi mas nay waxtaane yonent bi am koy jubbantiku mu ne ko jógal foofu may ma sallallahu alayhi wa sallam bu ñu koy tudd kenn di yëngu nga xam ne jubbanti ko toogeen rek ngir fonk sallallahu alayhi wa sallam ay bëgg gi mu bëgg yonente bi alayhi salaam nee na dafa a nett li maam Serigne si li turéndu la ba mu koy firi naa ci géej gi bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ma masaa naan warga sax sukkar si du saf bu ma masaan naan café sukkar si du saf waaye bis nag yonent bi dikkal ma boppam wa jaani bi kalimatin xad istaxraqte xidma zahira wa batina yonent bi feeñu man wax ma baat bopp dafa man suuxal liggéey bi te bi dafa ñëw gabon ma fa na ma seet naa ba seet na sama yoonu bopp bi li ma tax a ñëw mooy seereel la na moo tax suñ di wax ne muhammadun yuhibbuna wa qaama bima yasuruna wala nu laa laa suñ tubaa ne yonent bi dafa ma bëgg man ba noppi yëmul ci bëgg ma waaye day taxaw ci lépp lu may bégloo ca la Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di taxaw bëgg yonente bi alayhi salaatu salaam moo tax muy jël engagement yoo xam ne du tekki laxasaay mukk jël dundam séddale ñaari xaaj salaatu sitta bi mata sitta te atiyi batta maati shay maati shay husnul ixtifa hmm. ibaadu rabbi la sharika lahu juróom benn weer yoo xam ne bu weeru tamxarit soso hmm. madatu xayral xalq min al muharrami hmm. ila intisafil aami taa takarumi juróom benn weer yi mu xaaju muy muharram ba ilanti saafil am waaye lahu salaati wa mii min rajab li xat misil xijat ne amul mu tajab jël dundam gi amul temps juróom benn weer yi day tagg yonente bi juróom weer yi muy jul ci moom sëñ Moussa na euh, soo ko tuddee mu daal di ree giñ na ne daawun sore nga xam ne boo ma sax bëgg muuñ loo ko wala bégloo ko tuddal yonent bi hmm. boo tuddee yonent bi rek mu muuñ loolu dal na ko mooy ba nee na ida katabtu ibtasamal jamilu wan qaada fii xidmati tajmilu may egg naa ci bu ba sëppee xalima gi rasulaay muuñ ma tee xaraatu aw katabtu wa durri sama ma it saa yu ma bindee ba may jàng yonent bi day reetaan yonent bi day bég ndax bëgg gi ma bëgg ma bëgg moo tax benn bind kër dana ko sa xol jeex na takk doom néew ca alal néew ca rasulaay rek a ci nekk hmm. ada ba qalbuka xubbal xibbi yaa sanada fa xubba xibbika yam xoo xubbakal wala da kon ki gën a bëgg yonant bi mooy sëñ Tuubaa moo tax mu nekk xadiimam nekk ki gën a kawe ci ñu koy liggéeyal ndax bëgg gi mu ko bëgg moom te xoolal li gën a yéeme mooy nee na coono bu mu mën a daj sëñ Tuubaa ak loo mën a jàpp ne moom a daj coono géej géej liggéey bi noppi li ma ko yóbbee daxaa nii li iqdaami nabi xubu daatihi daxaa nii ila matxi nabi xubu daatihi li ma yóbbee coono liggéey bi bëgg ko rek li ma yóbbee coono tagg ko bëgg ko rek ñu ne ko waaw li nga liggéeyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam lépp ci la maaxil bachir kon noo ko def mu ne doona kas bin fi ci ajzaaw gratuite laa ko def sakkuma ci genn fay moo tax sëñ Cheikh Abal radiyallahu laa anhu mas na ànd ak Cheikh Abdoul Fadal ñëw njeereem fekk sëñ Tuubaa ci ci roq mm-hmm. foo jaar baag si mu ne xanaa di teggi lu ñuy moytu tey daw sëñ ne nu kër gi mel Cheikh Awa Balla na kër gaa ngi fees dell mu ne ca ma doon liggéeyal nee rongo ñu la soteet mu ne ba ma koy liggéeyal di jëmmi yàlla ji rek a tax ak bëgg ko waaye sëñ Tuubaa ci woon lii kon bëgg sëñ bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam bi it xam nga mënoon naa bëgg yonent bi waaye wa alihi wa sahbihi bu bëggee yonent bi it day bëgg njabootam xam nga hadaani fa mu yëpp léegi nag yàlla jubal ma nag ci ni ma ni ma bëggee yonante bi ma bëggee ko nag ay saxaabam nga xam ne kiraamun humaatun wal masaaya jaliyatun yaruhu bihim qalbi dawaaman wi yaqtali waxtu wu ne sama xol day na ci ñoom bu leen di tudd gis nga ni muy defee tawasul ci ñoom di tudd saxaaba yi tudd gaa yu baax yi nga xam ne di leen tagg di leen kañ ni suñ tubaab bëggee yonante bi alayhi salaam noonu la bëggee ay saxaabaam ba bu tudd yonante boo seetloo fu mu ko tudd da koy tagg te da ngay seetlu sax ne bëgg yonante bi tax na lenn lu metti luñ ma sa teg yonante bi suñ tubaab bu wax da koy teggi ndax bëgg yonent bi alayhi salaam waggar ko màggal ko ba bu koy wax waxtu wu nekk day day day day yëg ne mi ngi jege yonent bi alayhi salaam waaye mi ngi am cofeel ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne waxtu wu nekk kër këram gu nekk waxtu wu nekk xol bi day fees dell ci bëgg Moustapha sallallahu alayhi wa sallam amul benn mbëggeel wala genn mbir mu muy yëg loolu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax Abdullahi wa Xaadimu Rasul waaye xam ngeen ne loolu jural na ko it mu nekk xaritam nekk soppeem nga xam ne mu waxal na boppam ne ah, Mouhamadul Muxtaar li mat la sirrahu léegi egg naa ci ba yonent bi jël booti boppam tabbal ko ci man ndax bëgg ma bëgg yonent bi alayhi salaam xidmatu xayral aalamina addaxalat fi kalkali asraruhu fa daxalat madaliyal muxtaaru sirran lan yura xattu li xayri wala xayri lan yura léegi loolu moo ko may mu egg foo xam ne kenn ku egg ci mu waaye waaye gis nga la mu waxaat ah nga xam ne Mouhamadul Muxtaar bahabiyal wara sëñ Tuubaa ne na man la yonent bi di xëllanto mbindee fi ëllëg nga xam ne kon Euh, melo ba mu mel ci yonente bi ak fi jaar ci yonente bi alayhi salaam ak lim def ci sallallahu alayhi wasallam loolu da nga koy xool ci biir ay mbindam xool ko ci biir ay waxam xam ne bu dee bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam sëñ Tuubaa léppam yonente bi la ko jox xoolal ki nga xam ne jaral na ko xusuur yi xalat wal ahlu an i tafaraqat hmm. li madaxi la di anhul madiw xasiru hmm. sama kër yi gent hmm. tàggoon na sama njaboot lu ma ko yóbbee li madaxi la di anhul madiw xasiru tagg rasulullah sallallahu alayhi wasallam rek te kat masir yi kaw noo euh, xaadima nabi sama sama dox bii lu ko waral kaw nu na bi sama nekk di liggéey rasul wa abdallahi di liggéey di jaamu yàlla boo xam dama koy jaam kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko Sëñ Tuubaa bëgg ak lim ko jaral amul kenn ku egg foofu ci dayob bëgg Moustapha sallallahu alayhi wa sallam te lool feeñ ci biir ay mbindam feeñ ci biir ak njabootam feeñ ci biir ay jëfam feeñ ci biir ay waxam biir li muy tagg yonent bi da xoolal ma waahibu naafi fi mada ay shafian xasida goo xam ne bi muy tagg yonent bi tuddul turu fenn waaye dafa ko jàngal saakal Bachiru lahu ushiru bi sa sanaay projecteur baa ngoog lampe bi leeral jamono ngoog kooku mooy mbég mi kooku laa leen di junj nag bi sa sanaay yi ci tàgg bi kon sëñ Mor diggante sëñ Tuubaa ak Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa du du loo xam ne mënees na koo lim ngir yaatu gi ak mat gi eh. waaye bëgg gim ko bëgg fonk gim ko fonk ak jeex gim jeex ci yonent bi jeex ci biir ay saxaabaam jeex ci biir ay dëkkam nga xam ne makkatal mu karama na mu koy bëggee di ko xemmeem di wax damay dox ca suuf di xalaat suuf ya di xalam doj ya di xalam yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne bëgg biir xolam moom euh, waxtu wu nekk bëgg yonent bi salaatu salaam moo cay pàngat boo ko tuddee ni ko suñ Moussa ko waxee léegi boo ko tuddee mu daal di ree gis naa ñu dawun soree nga xam ne boo ko mësee bëgg a bégloo sax tuddal yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne boo tuddee tur rek mu tàggoog sa bëgg yonente bi alayhi salaatu salaam ba lépp lu muy jóor ci ay tagg nga xam dafa warlul boppam nday jóoram bi yamini alayha day nuqatin xawaarida bi xidmati xillii dil madinati sahaadi man daal warlu naa sama nday jóor bii waxtu wu ne danaa jël ay tagg di ko jëme ci rasulullahi salaatu salaam at mu jot maa ko warlul lil Mustafa li si turaam lahu salaatu wa salaam ma xam hamtidahi kulla am rumtu min al mukarram nga xam ne moom demande naa ba ko ci yàlla na ko at mu jot danaa jël ay tagg yu bees taq yu kenn mës a wax rasulullah dajji ko jëmee ko ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ba noppi nag saxal ne antal karimu xam nga lu gàtt la ñu di ko jàng antal karimu anal xadimu ah. dëhran udimu fi ka sanaay yow yaay ku tedd ki hmm. yaay ku baax ki yaay ku màgg ki anil xadimu man maay surga bi maa ne sa gën dëhëran udiimu fi ka tana diirub jamono damay sax di la tagg yow rasulaay salaam waaye innil xadiimu hay su uqiimu maay ki lay liggéeyal fu ma fi mën a ne xameewu ma neex ak naqar aqdimuhu ilaa duxuli janna dama koy liggéeyal ban tàbbi ajjana léegi bu demee ajjana nu ñuy def ne ci seen i kër ñii di dallu suñ cubaana déedéet bu demee ba ajjana man wajal nii bi jeexi mi man yaqdimuhu fil janna bu ne sama kër ñu ñëw di liggéeyal nga xam ne kon moom du noppalu ci liggéeyal alayhi